Euh, Arafat moom moo jëloon deuxième meilleur agneau fii la. ba pare yàlla jël meilleur mâle espoir rep. ok tolloon tey mu ngi ñaata mois. 25 mois. 25 mois Arafat ah tey euh, nga indi ko indi ko ay a ana des na kenn am na sa femelle bu ma sonal gañe leneen de or blanc. or blanc waaw or dafa yeble dafa yeble doom ñëw. kooku mooy fu mu gañeeti woon. or blanc mooy nekkoon meilleur euh, femelle rep 2019. J'ai battu record Adam 2020. Ok. Nek meilleure femelle sept 2021. Ok. Nekkat aussi meilleure femelle bokk saamu 2021. oh macha allah or balaa gis naa tamit mu def. 2000 te nag bi muy jël bi muy jël sal bokk saamu 2020. waaw ànd ak doomam bu jigéen bi corridor. waaw moom aussi mu jël deuxième meilleure agnelle. mais mais mais c'est là yo foo foo foo base de femelle boobu foog liggéey. bon Malika Brésil ba rek xam nga ñun aussi moo dañoo bëgg ci qualité. waaw moo tax à chaque fois dañuy dugal mal ligue ci benn base. ok. xool li li xari manqué ñu wuti beneen maal bu ko compensé ci dinañ boobu lañuy dox ok à chaque fois boo ñëwee xam ni maanaam bergerie bi muy dox ay jéego yu extraordinaire macha allah allah ba tey boo ñëwee nii gis ni say femelle da ngay gis ni ba léegi yaa ngi ci maturation ci maturation liggéey macha allah maturation ok fa la toll bi mu ngi ci ñoom ba pare mais aussi da ngay liggéey ci maturation sëkk ok léegi maal bi kan la kan la ba mu teg bu ñuul bee ci koor yi gàtt yi kan la. kooku mooy mboq bi or blanc andaloon si la. ok. mu ngi 13 mois. ok mu ngi 13 mois boobu mbo bu tawee mbote la woon. mbote la woon nga rappelé moom la or blanc yaay doon nambal fi la mi ñëw fi la. ah ok doomu or blanc la. macha allah moom nga indi tey kon tëbugul. non tooy tëbu na sax bi quoi. ci maal ci maal bi non non beneen maal bi ko tëb mu ngi ko. nuur laa benn doomu benn doomu nimsat. moo dugal fan yii moom si ne élevage xaar boo xar boobu. dégg naa da nga da nga da nga aay ci croisement sa waay waa ci la wal xoox wax na ma fi nga jaar ba ba ba ba la boo judd waaw non non moom sama waay la xam nga sama waay la mi moom uh-huh. bu la buy liggéey uh-huh. jël léppam jox la ah. parce que da ngay def sa bopp waaw da ngay def sa bopp rek koy yëg ah. aussi xar la boo xam ni Coly boobu ndaanaan xar la dégg naa bu mu indee yaay pour nga mu am maal bu mu taamu da nga ne ko non waaw nga ne ko waaw kon boobu boo ko fixé rek ba mu ba ok doomu doomu boo ko jëlee teg ko doomu am dam dara mën naa xew ko ok moo waral moo waral boobu macha allah après bu ñu jógee ci euh, añal boobu ñu gis naa fa beneen ca euh, naaru ñebe kii rafet na de. kii moom kii mooy kii mooy Fatou Thiam. kii moom euh, añal wala quoi. non femelle la. femelle la kii mère Maguette Guissé moom ko jox. ah, ah, ah. ñaata moom am na émission boo defoon mère Maguette Guissé. añal bi taaw la woon te naan la 6 mois la tëb. waaw waaw waaw moo nekk nii. te ma fekk muy jur. merci moo nekk nii. moo nekk nii mbaramam juróom nañu nii. ok mbaram bi mu ngi taal taal na ay seex mi nii kër gi seexañ kër ga mbaay ko. jël doom wala. dama jël doom ji tëblu ko ko ci masoor jox ko mu yóbbu bi bi ma amee masoor doom bu jigéen juraat góor ma récupéré bi aj récupéré doom ji am ñaata moom doom ji moom mu tudd seen macha allah ok mu def kee tout bon kooku mooy mooy corridor kii moo moo moo gagné woon euh, foire bokk sàmm bi deuxième maire agnel mooy corridor ah corridor léegi nag kii maal bi nu tudd Arafat Arafat waaw mu toll lu mu naka naka production am de. mu ngi produire parce que xam dama ko dénkaane woon parce que papa ji ma nekkoon ko di liggéey maçon ma dénkaane woon ko. bo ci koor gi lay sogo ñibis tout récemment ok mais commencé na résultat fi ni parce que aussi defagul na ñaari añu añal ak benn añu mais wax dëgg yàlla mu ngi ko day extra major nag moom eh, mooy papa major mu ngi fa di liggéey major non major jox naa major star bu star bu nord ok kon rek fa comme mal moo fa nekk ak la mal ma lay wax ni nuur la ko mooy gan nim saat la ok moo la nok élevage xaar mu ci 9 mois mais 9 mois da ko recruter ko recruter machallah comme ko Mansour waaw waaw waaw bergerie feu vert. feu vert ah, ñoom dañoo mën dañoo mën dañoo dañoo mën ma démb jóge naa fa gis bu rafet moom bu noir añëw ah waaw macha allah macha allah ah euh, conseil de la yaa ngi ci yéen beneen beneen élan waaw ah, mais noonu la noonu la xam nga am na feneen fooy waaj a génn dañuy na yow moom liggéey bi da nga ko da nga la maa du dugg li xari manqué rek ñu ah. ah. ciblé hmm. ah. lu allah whatsapp kon tal dam incha allah incha allah kontaan naa <laughs>